eɗen detti allah hande ko koɗo men kadi ko yimmiraɗo ko sehil ene moƴƴa kadi ko kanko nula ko dia dawde diallo wi tan kadi fonno ini nulimo yo ar ɗum noon en goppanmo tan kanko no yettimen moom kii moo la war a wax ci ñun parce que ci nga dëkk waaye yow la ministre de l'intérieur yaakaar naa yónni comme yow la yónni nag ñun ñëpp ñu déglu la léegi wax ñu li ngay indi ba pare après ñu la ko. c'est ça c'est ça. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. commencé nuyu chef de village. bi nga xam ne moom mooy autorité fi ministre toogal fi président de la république. donc woni lonko président de la république ɗo wuro he toogal fi askan bi ande yoolani aussi denndaangal koye juural ko a tedd ɗum kadi noon salminaan ɓurno teddude e nuyu alkalimi ceerno fi nga xam ne foofu la ko yàlla teg min ƴeewa hawdema ɗo e allah fawma ɗo mooy fi nga xam ne ñun en tant julit foofu la ñuy teg sunu nit ñu baax ñi nga xam ñoom ñu gën a jege yàlla. yàlla loolu maa ngi wax fawda fawda xalifaaru mag bi lu bindu diine bi pour si nit lu jiite xaw ma xaar ñu doon. ñu ngi koy nuyu ci turu président de la République. calmin maa noonu indi Maodo ngay ji président de la République. ñu ko nuyu ci turu gouvernement bi yëpp. calmin maa ci indi laamu mu Sénégal ñu di ko jaare aussi ci ki nga xam ne moom moo ñu wax ne nañ ko ñëw teewal ko fii. mais néew na du mu et puis dafay wante yow ngar be noonu soo mooy seen doom Abdoulaye Daouda Diallo. mooy seen doom Abdoulaye Daouda Diallo mu ngi si leen koy li ñoo nag ànd ak euh, gouverneur. mu ànd ak ñoom gouverneur région mu ngandu leno ak préfet. ak préfet. ak suma directeur de cabinet. directeur ma ko cabinet man de ma ak euh, seen doom xam ne moom ki lañ ko fekk moo ñu dalal <laughs> muy Mamadou Tall yéen Mamadou Tall gis ñu ak délégation bi mu àndal parce que bi muy ñëw moom bàyyiwul kenn dafa ñëw ànd ak délégation bi mag délégation moom Mamadou Tall tànk yi nag tànku jàmm la. jàmm dal. xam nga état dafa njaboote ñëpp. waaw suñu xal bi njaboot gi nekkee si jafe-jafe. tous mu ngu woni wonaani wone caɗeele état war na leen wan ne suma njaboot ngeen. laamu en haani hullude on wonde koye am jeeyɗon bu nekkee si bànneex aussi am jeeyɗon bii nag dañu am jafe-jafe gonnoon e monde caɗeele ñu koy métti lu ñun ñëpp musiɓe kamɓe fof mi ñaan yàlla mi nga xam ne moom moo ñu ko teg yo ñaago allah fawɗe en ɗum o yàlla nañu ko wëlbatit yo allah waflit tan en ɗum mu nekk euh, barke wonta barke mu nekk euh, bakkaar yi ñu jéggale wonta bakkatuji jaafaɗi mu nekk loo xam ne aussi dañu koy fàttaliku waaye lu yàgg yàgg te bu fi amati kon bu ñu ñëwee ba ci kanam xalif bi Mouhamed ne moom nag gannaaw yàlla moom moo njaboote njaboot bi yëpp nag moom lañuy moom la ñuy yëkkati euh, loolu kàddu yooyu nga xam ne président la bi ñuy ñëw ci yoon bi rek mu ngi woo ndax ak ngeen ndax am moo fa am ah, di inquiété wu bu baax dañ naroon ñibbiwaat tey mën a déedéet toog leen ngeen jël seen temps bu baax dem si nit ñi ngeen massawu leen bu baax ñëwul mais xol bi ñëwul président da na mu gaawoon. parce que ñun ñuy liggéey moo xam nañu ne lu ñu lu laal ci maatam rek. loolu ngeen di xam ne kala ko mel ni maatam tam. moom dèjà dafay dafay déglu. te ci bàyyi xelam bu baax a baax a baax. tey lay soog a jógee France. waaye ci yoon bi woo bi ñuy ñëw ci yoon bi encore woowaat nañu. kon mu ngi di masawu bu baax a baax. masawu bu baax xam nañu ne lii moom benn doomu aadama du ko teg moromu doomu aadama ñoo yàq xam nañu ne xam nañ ne yàq-yàq yu bari na yi wax nañu ne vingt-six chefs